Euh, je voudrais qu'on revienne sur des principes parce que tantôt. en la. Euh, en euh, dama bëggoon ñu ñëwaat si li ñuy wax ay principe principe bu njëkk bi ñu bëri ñu ngi fii di accuser conseil constitutionnel te suñu constitution dafa ne présomption d'innocence ñun nag mënuñu fi nekk. nekk di tiim ñoo xam ne institution bu mag comme conseil constitutionnel ñuy nekk di leen di di leen di accuser pour rien présomption d'innocence bu ñu leen bu ñu dem bi accuser joxe nañu am nañu lu ñu lu ñu lu ñu métti ko waa PDS déposé ngeen ko assemblée na yem foofu parce que loolu da dafa solo man mu mënuma toog fii may dëgg loolu ñu ñëwaat ci ay principe ñaareeli principe bu ma bëgg ñëwaat may système démocratique Sénégal système démocratique si monde yëpp yu dëgër yëpp si ñaat lan mooy seen cœur de fonctionnement mooy droit de vote ak droit de candidature droit de vote sénégalais bu nekk mu am droit de vote dem voter tànn sa président tànn sa maire tànn sa sa ak droit de candidature donc loolu dama bëgg ñu ñëw si principe yooyu ba ba ñetteel bi mooy décision bu conseil constitutionnel jël si ka parce que dañuy dañuy bëgg a def amalgame man dinaa ñëw si amalgame bi tout à l'heure commission d'enquête bi n'a rien à voir avec le report ça n'a rien à voir commission d'enquête bi avec tey la ñoom ñoo ñoom dañuy def seen report mais am na ay biais yu bëri yu dugg si processus bi yoo xamante ni man en tant que citoyen ah suñu demee si élection yi de dinaa am dinaa si am jaaxle si sama fonctionnement dëkk. comme lan. bu njëkk bi bu njëkk bi mooy euh, conseil constitutionnel nee na Karim Meïssa du sénégalais au moment du dépôt au moment du dépôt man man man damay wax loo xam ne c'est de façon. scientifique parce que malheureusement pour ñeneen sans sans déplaise man je je, je raisonne scientifiquement conseil constitutionnel bi dafa def foofu deux poids deux mesures mu ne Karim Meïssa Wade yow booy déposer sa candidature tu vous n'étiez pas nekkuloo woon sénégalais rek français nga ak sénégalais mais bu may jël décision bi loolu yow indil nga ma papier bi nekkatoo français. mais man duma ko jël en considération mu ne candidat Ousmane Sonko loolu lépp loo wax ni état bi moo la tere nga am sa parrainage d'accord naa si mais attention le 4 dañ la dañ la inéligible te fekk bu mu koy déposé nekkuloon donc deux poids deux mesures on est bien d'accord donc conseil concerné bi su jëlee position su jëlee position mooy que à la date T moom la ñu wax fii à la date bu ñuy avant la décision conseil constitutionnel bi loi bi moo ko ne mu saytu mu dem il a le devoir de saytu quel est l'état avant sa décision donc loolu mu nekk un principe boo xam ne def na ko mais cela ne qu'à cela ne tienne conseil constitutionnel jël na décision mu ne Karim Meïssa Wade bokk si décision conseil bi comme loolu noo ko waxee léegi mën nañ ci d'accord mën nañ ci bañ a d'accord def nañ seen interprétation donc cette décision s'impose aux acteurs politiques ñu dem quelque temps ce même conseil constitutionnel ñun on constate constate c'est ce qui est dit on constate qu'il y a d'autres candidats ou je ne sais pas un ou deux ou trois qui ont de qui sont de double nationalité mais ça c'est un biais ah énorme loolu ñu ñoom ñu am ñaari nationalité mais kuy wax si principe rek mais c'est un bien énorme mais man damay bëgg may may find affaire yi si ay mbir ñun ñeenti ñu nekk candidat kii warul nekk candidat ñëpp ñuy votel kii man suñu moom su bokkulee man la ñuy votel ñu dem premier tour moom mu am man lu ma manqué pour ma gagner moom lay si si moom la ñu voté te moom waruloo nekk candidat loolu lay tubaab bi di wax biais si élection ku warul bokk su bokkee day indi biais ci élection présidentielle donc élection boobu mënul nekk élection boo xam ne nit yi mën nañu nangu résultat bi. donc vous êtes pour le report. non dëgg ma wax ma ne la ma man lu ma la wax leer na de dama ne élection bie su ci amee kenn ku waroon ku warul bokk man may man may dem di élection am droit nekk nekk candidat beneen candidat warul bokk. te mën na am moom voix yu ñu koy votel su bokkuloon si man lay ñëw pour man ma nekk président su bokkee dafa am biais luy tubaab bi di wax loo xam ne dafa indi jalgati si si élection yi donc pour loolu rek waxuma Karim Wade waxuma leneen loolu rek war na tax ñu report ñaareeli ñaareeli lëf loo xam ne moom ma mën a am bés loo xam ne mu mën a am am report ñaareel mooy mais candidature de Diomaye fay ok Bassirou fay Faye ça Bassirou Diomaye Faye candidature mais loolu mooy moom moom mooy moom mooy wone ni dafa am biais e, e, également tey tey laajte na leen lu mu laaj liberté provisoire ñu bañ ko donc cela veut dire que candidat yëpp 19 yi su ñu demee ñëpp dinañu dem am droit de déplacement moom amul droit de déplacement un autre biais déséquilibre si sélection bi loolu loolu mooy wane lan mooy wane que benn candidat boo xam ne ne jouit pas de ses de tous ses droits civiques mais constitution moo ko wax mu ne candidat bu amul et politique waroo bokk mais un candidat qui est mi qui est sous mandat de dépôt régulièrement mis sous mandat de dépôt mais ne na ne jouit pas de ses droits de déplacement donc il ne jouit pas par conséquence de tous ses droits civils et et et, et politiques donc il n'y a même pas besoin article huit de la constitution article 28 de la constitution moo ko soo jëlee article 8 alinéa 2 article 28 dafa leer loolu mooy wane ni dëggul ma ne jàpp ne ma ne candidature am waruñu ko woon valider candidature am daf dañ dañu war a nekk di conséquence moo tax ma ne dañu war a dem si ay principe suñ ko validé mooy conseil constitutionnel day day day day day comment dirais-je wax ñu libéral mu jure de c'est pas la prérogative non xam naa donc du prérogative donc comme du prérogative am comme il a été il a été sous mandat de dépôt mis sous mandat de dépôt régulièrement il ne jouit plus de ses droits de déplacement donc cela veut dire que ku jouir de sa déploiement parce que gars yi dañuy dañuy déplacé déplacé wax bi dañuy da ngay wax ñu ne la il est pas encore condamné non constitution bi waxul loolu constitution bi dafa ne sooy dem nekk kii sooy dem nekk candidat da ngay jouir de tous tes droits civils et politiques sans casier judiciaire mais non du loolu mais da ngeen di da ngeen di da ngeen nit yi dañuy confondre lu nekk ci casier bi ak jouir de ses droits mais waxu démontré naa leen que nu mu nekkee nuñ ko nu mu nekkee si lu ñu ko yoon téye dafa am biais si élection bi biais yooyu biais ñooyu biais yu double nationalité bi boo xam ne benn candidat am na ko biais Diomaye Faye boo xamante ni mi ngi si euh, en en détention mi mi ngi kaso sérieusement mënuñu dem si élection dans ces conditions là mu alors alors donc vous êtes pour le report ba xaaral rek ma xaar xaaral rek ma ma ma ma ma ma continuer. parce que dama bëgg a wax dama bëgg a wax. non je veux qu'il le dise de manière précise ma ne président de la République. pour le report de l'élection du question report man je suis un citoyen. xam ma ñëw may xool sama sama dëkk nu muy doxee président de la République may man ma interpeller euh, institution yëpp président de la République c'est le gardien de la de de notre constitution. c'est le garant du bon fonctionnement de nos institutions et, de, et, et du respect de, nos, de man je je dis c'est au président de la République de prendre ses responsabilités constitutionnelles. l'article 50 non je dis je dis je dis je dis je dis man waxuma je parle man je parle en tant que man citoyen je dis ah. man su ma élire président de la République su amee biais yooyu si institution. politique parce que le conseil constitutionnel dañuy fàtte c'est une institution politique même si c'est comme ça c'est une institution donc su amee biais si institution yooyu su amee ay biais dañ koy dañuy jël seen responsabilité moo tax PDS ñu man ànduma ak ñoom bokkuñu c'est pas c'est pas te dëgg naa sànq ngay wax ngay wax ni PDS lu ñu leen def déedéet def def ñu dara PDS c'est l'État c'est c'est c'est ah c'est l'État Assane ah, tu confirmes que ah, defuñu leen dara ci lii ci day leer day leer defuñu dara dara PDS et ensuite mais man je suis de la majorité je suis pas d'accord avec la commission d'enquête parlementaire je suis pas d'accord man man c'est je, je ne suis pas une personne boo xamante ni dañ may yónni may wax je ne suis pas d'accord avec la commission d'enquête parlementaire parce que sa amène un fait nouveau dans notre institution Assemblée nationale a le droit de créer sa commission d'enquête c'est ce qu'il fait. non xaaral rek xaaral rek ma ma continuer da da wax ma noppi terminal foofu damay jël le professeur. non bàyyi bàyyi ma euh, ba ba nga jël ko pare. waaw ah, dañuy damay jël parce que j'ai besoin de lui pour des éclairages. mu ah. lu ma bëgg a wax mooy que commission d'enquête mën ngeen ko créer vous vous avez le droit de créer parce que loi bi mën ko may règlement intérieur mën ko may mais sur l'objet de d'enquête sur les travaux du conseil constitutionnel vous la la. commission n'en a pas le droit. c'est que non c'est une loi c'est une loi hmm. c'est une loi mënu leen fi convoqué d'ailleurs sax mais euh, euh, jéem leen ko soo leen convoqué benn juge conseil parce que vous n'avez vous pas le droit waaw xaaral rek xaaral rek waaw mais mën leen si dara. amul benn sanction bu leen mën waaw déglu ma waaw déglu ma waaw moo tax ma ne moo tax ma ne moo tax ma moo tax ma ne ça sera de nuit waaw déglu ma cette commission là waaw la seen loi boo leen introduire pour le report loolu mooy responsabilité député oui mais ak commission d'enquête bi non déglu ma rek ma calme mooy loolu mooy loolu mooy responsabilité député député day gis ni lii mënul kii lii laa bëgg mu ñëw indi loi ñu ñu ñu ñu voté ko donc man autant pour le report il y a mais bëgguma ñu jël report bi ah, euh, monsieur Sy wax na sànq président moo d'accord ci commission d'enquête parlementaire ça n'a rien à voir avec le report ça n'a rien la commission d'enquête am benn benn waa PDS ñoom ñoo bëgg a leeral seen biir comme ñëpp ku bëgg a leeral dara le report c'est d'autres faits qui sont des faits nouveaux yoo xamante ni tout Sénégalais bu bëgg a bëgg bëgg a bañ comme lu mu lu mu koy wax dañu war a maslaa bay nañu yegg nañu fii ñu war a bay mais mais yéen. mais dëkk bi waaye non non mais bay rek xarum wax la non. non non man waaw mais ma ko qualifié ñu ne non yegg nañu fii waaw war nañu bay noo sérieusement dëkk bi dafa am dafa am. ma ba bay dëkk bi dafa am fu ñu toll fu ñu toll foo xamante ni mënuñu mënuñu continuer di maslaa. di ne ñu bàyyi lii bàyyi yoo xam ne c'est le euh, principe on revient à vous